Ngalabe fone. Ngalabe. Da fone. Ngalabe mara na. Naka naka soxla yi ak soxla yi. Sant yàlla maa ngi nekk. Da naka jaboot gi. Maa ngi fi. Sama doom lay sama xam nga ni lamb yow la ñu bëgg. Non non mais. Non ça va. Lamb yow la ñu bëgg. Nul n'est réussi à te à te copier. Maa ngi sant yàlla. baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay di la wax ni soo mokkalee dox da nga war a bàyyi raam. dëgg la dëgg la. lamb ji nekk nañ ci lu ëpp ñaar fukki at. Ah, ah. kon ay doyen la ci léegi muy yow man muy keneen ak keneen li war rek mooy ñu rafetal xol yi yaatal ko ubbi ko ba pare télévision yi dañoo taw seen responsabilité ci lamb man maa ngi koy wax ba tàmbale ko ci futur média gi ma nekk dañoo daw seen responsabilité ci wàllu làmb site internet yi wéet ci lool léegi làmb boo ko bëggee xool da nga koy xool ci site internet yi pour lan làmb télévision classique la war a waaw télévision yi war ci dugal seen loxo yu mel nii ñu ñëw def direct pour que xale yi comme ni ñu ko doon defee. Ah. mais man maa ko wax moment yi toll yi télévision yëpp dañoo daw seen responsabilité ci wàllu làmb jël yëpp jox ko site internet yi pour lan. tamit mën waaye télévision génnee rey làmb maa ko wax. population la ñuy xaar. dalee la ñuy xaar man maa ko wax man kuy attaqué dañoo attaqué ma. tàmbale ko ci site média gi ma nekk ak télé yëpp. dañoo daw seen responsabilité ci wàllu làmb nañu jël làmb ji def ko ni ñu ko defoon parce que jeunesse moo ko moom te dañ fi war a nekkal jeunesse bi nekkal fi réew waaw Lamine Lamine Ama Baldé fu mu taxaw ba bëgg ba man Ama Baldé fan la joggi ba gëm ni que dafay daan Modou Lô la joggi mooy fi Balla Gaye jot joggi woon ne damay daan Yaxya Joob Yékini mooy fi Balla Gaye joggi woon ne damay daani Tyson mooy fi Modou Lô joggi woon ne damay daani Eumeu Sène bi Modou Lo jokki woon ne damay bëri jéeg Bombardier dama ne Ama bu bëree ak Modou Lo wàcc na roi des arènes dafa dugg ñaari yoon bi ñu dugg fa ci Tyson dugg fa ci Eumeu Sène ñu lamba ko boole ak Modou Lo waaye nag kaay ma yàgg ërtël li mu ërtël Modou Lo nii ko kaa ñu bëre bëri yàgg def bëri dana ci génn mbaa du ci génn loolu moom la. Ama Baldé yor na capacité yi mu daane Modou Lô. waaye moom Ama Baldé yor takkusaan bu mu mën a daanee Modou Lô Balla Gaye Eumeu Sène Lac de Guiers ci benn takkusaan mën na boole fukki mbër daan leen ci takkusaan. kon mën na bëre octobre. bëre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet sport xale koy def. Lamine xale koy def sport nu mu tudd seetlu bu ndaw. seetlu bu ndaw il n'a même pas 30 ans. waaye mi ngi dajeeg koo xam ne. amul lu ko ñëpp doon xasee Modou Lo lan la ko ñëpp doon xasee. doo dégg bu ko roi des arènes. walaay ngay xasee na ko. ma seen xasee na ko. Bombardier xasee na ko. tey mu yor roi roi des bi tëj ko parcelle pendant cinq ans. koy tuddee oustaz day naxee. day naxe gëm naa ko. intellectuellement day naxe. mystiquement day naxe. mi ngi entraîné guddi mi ngi entraîné bëccëg waaye mois de novembre de feu keroog ñu ne tey la xaw ma lan novembre. guddi ne ba dal na combat royal Modou Lo ak Ama Baldé. waaw ah ah, bari laay laay la la. Aliou Gueye foo ne. seer yaa ngi France. yow ak Éric Fabre quoi. Aliou lu ngeen di waaj Aliou Gueye am ngeen da ngeen journée boo xam ne man mosuma gis sama dund. gën a waaj. gis nga boo xoolee. le 6 janvier. bii di bii di ñëw bii di ñëw. man événement bu mag bi ñu organisé. mais Lion lañ koy organisé. xamante ni dina ci combattre. Bombardier dina ci combattre. Laurent Ndiago dina ci combattre mais Lion la. <laughs> mais Eric Favre li nga doon bëggoon a nangu làmb ji. Euh, dama bëggoon dëgg Ama Baldé arsi la. moom nga bëgg a tëj Alioune Gueye. mais yàlla def avant nga ci ñaari combat. waaw nga di yéex di yéex di yéex di yéex. loolu moom moo posé. mais amaat mën na jël benn avance. bon mais nag benn combat bi day yàgg parce que dama bëgg su ko rek Modou Lo bu pare. waaw moom ak jibi du yàgg. waaw bu paree rek. bu bëggee lan la monsieur Badog avance. mais est-ce que doo leen teeloon dugal avance bu téye ngeen signé le contrat nga affiché combat bi gënul woon. ñoom paree bu ñu pour jël beneen avance xam nga nag te comprendre naa leen. waaw ah. tey bu yàlla defoon ñu daan ñu nekk roi des arènes. si ñu gën a xeex. donc comprendre naa loolu ñuy def lan la. Ah, te et puis certainement aussi. parce que mbër sooy daan day gën a yokk sa kase. donc boo daanoo aussi da nga war a wàññi sa kase. waaw comprendre naa ne amati problème man aw problème fay ak yow. mais daal yow foofu nga teg sa bët. foofu laa teg sa bët de fes fes bi ma ko organiser comme ni ñu def.

man daal bokk naa li nga naan bokk naa